weer woo xam ne ñëpp lañ ci waroon dokkeel waaye ñu mel ne ñoo ci raw ndax ki nga xam ne moo waral gàmmu la taxoon mu ñëw ci loola nga nekk muy woote ngeen jullit yi nekk benn basiiran wa nasiira groupe bi loolu rek tax nga ubbi ko basiiran wa nasiira bëggal ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci yoon wi di góor góor yoon lislaam yoon mag ñi góor waa leen góor salaatu Moustapha Diop nga xam ne ñoom dañoo jéng ñàkk a jaar ci yoon ñàkk fàttali lañ leen jàngaloon ngeen xuppale ni loolu di seen waru la nekk seen doxal yi kon guddi groupe groupe bi jikko yooyu la jël ci jikko yu borom gàmm bi muy Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam tey na ñu war ñu war di sunu mbokk di imam Dame di ko xam ne man tuuti naa ci xamle kan mooy imam Dame Seye waaye yéen ñëpp war ngeen a xam ne jàngkat la jàngalekat la taalibe la lii nag man damaa xamul maanaam mbart bu gën a bii yonent bi nee na gën ci nit mooy ki nga xam ne jàng na alxuraan ba fa di ko jàngale maanaam daal métier mooy jàngale jàngoon na ci suñu risaale ne maanaam bokk li fay merum yàlla mooy def alxuraan ci dënn doomu jullit kon moom ñuy fay merum yàlla fekk am na am na ñëwam ci la bokk imaam daan ñuy ramm la bokk nee nañu imaam daan sëy su ko bu taaxa jiitoon doomam ne ko daa bëgg a jàngal ko bis bi jëlee àlluwa teg ci teg ci eh, tànkam ne ko neel baax mu ne baax mu ne ko neel siin mu ne siin mu ne ko neel mi mu ne miim yàlla jéggal na imam dam sëy jéggal fu bu taaxa jéggal yaayu xale boobu noonu jéggalal xale baax siin miim koo xam ne nag yow yow lii rek moom mooy sa métier naka ba boo demee ba def téerab yàlla bi lépp tudd na kon tey imaam daam tey lañ fas yéene daal fii ci groupe bii buñ fas waxtaan ñun ci lu jëm ci li xew muy màggal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ni ko sëñ Tuba daan dundale ak ni mu ko daan ban gis-gis la léeg-léeg sëñ Tuba amoon ci màggal gàmm ak naka la ñuy war a gàmmoo ak lam la sëñ tubaab soo fonkoon yonente bi ak gàmm xam naa rek boo gisee li muy bind moom da nga xam ne fa mu tegoon gàmm tegoon fa yonente bi rëy na lool waxoon na ci badlam foosee ni nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani làkk wa dihatal abad sama lépp dénk naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nag imaam daan kon ñu ngi lay dal fas yéene nga ñëwal nu ci mbirum gàmmu kon mbokk ñu ñu àndandoo teewlu imam dam Dante ci groupe bu tedd bi. ko na ci sëñ bi ni mu fonke woon jàmm imam dam dana ci ñëw muy sëñ ma ndax sëñ Mouhamadou Lamine job dagal na nee na weeru gàmmo bu masaa seru sëriñ bi lu ko waay laaj dan la ko jox tam bu la ko jox dinaan la xanaa dañ ci waajal gan gu nekk sunu kanam. xool li mu wax fii ihyaaw mawlidul basir yixmi hiyaala wa diyoor فيه صفة للصدور لكل عاد ينتمي سلا على خير البصر باخي يديم ذو البصر في بالآل وصف بجرر ما سلا يهتمي إمام دام نيجي نيجي نيجي أم أي لاك يوخم نيجي أي لاك بس ك لا يوخم نسيب بيل نيجي فيه نيجي نسافر نيجي بدم بديكو يدي وأي موجي سافر يوخم نيجي يدي سنبيل نيجي فين نسي فين نسي ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam minha tajannabu subab xan gis mi ma fiyaat sëñ bi nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay ngëneelam ay tedd nga am aw weñ dal dal ci yaramam dal ci ay yéene boobu boobu bëggoon naa nga ñëwoon lu ci mujj sa boobu waxaat na feneen ci biir xasida boobu summiha tasbiha taam mu ne dégg nañ ñam buy saag baa ci loxob yonente bi sallallahu alayhi wasallam fii kaffi afdal amaam ba te bëggoon nañ nga ñëw ci mujj sa boobu xitaabu sabil bi salaam ibl wax na yonent bi dégg mu tekki ne kalaamu dabbil xat ataa fiha bi nafsin sabata mbëtt moo wax na dégg ak yu yeneen ak yeneen am na ñoo xam ne nga xam tudd ay xuraan yu yoon ak ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne ñoom dem nañ ba weddi karaama yi ne loolu ñu wax na iwaanu kesran sadaa ñu ne booba sawar woo fay vraiment dafa jut jut naturel boo xam ne comme ni jigéen ñi amee li xale xale yi juddoo bi rek waaye amul yooyu yëpp nekk ci woon bëggoon nañ nga ñëw ci mu ngi ci sa yii sëñ bi wax ne feeñ na ci ci yonente bi sallam lahu min al xawaariqi ma lay ma lam ji li saadiqi wala yafi li laahiqi fadlan min al muqaddami منها سلام الحجري حلي مسا سجري منها سلام العجري حلي مسا سجري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 majmuata jamaati l islaahi bayn annas noo ngi leen di nuyu di leen ziyaarata di leen ndokkeel ci weeru tedd wii nu nekk weeru gàmm di ñaan yàlla mu nangul nu mbooleem luñ ci dundal ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi ak màggal ci juddoom ga noo ngi jiital ci nuyoo bi nag eh, kii ñu dalal muy sëriñ imam Moustapha Diop imam Yamoussoukouro maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar macha allah xam naa moom rek manoon naa teewe jataay bi xëy na bëgg mu gën a yaatoo tax rek si sëriñ Hamza fekk moom it ñu ngi koy nuyu bu baax ci jihdu beeg lépp bëgg xam-xam génn ak dundal juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek la di nuyu bu baax imam Cheikh Alpha ak waa majmaa bi yëpp bàyyiwuñu kenn kon imam Moustapha ni nga ko waxee xam naa dinañ euh, jéem a ñëw kem kàttan ci li nga xam ne moom moo nekk ci affiche bi te mooy cheikhul xadim radiallahu anhu cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte mënee xayma waaye dañuy dañuy sukkandiku rek ci li ñu gis mu bind ko ngir sopp yonente bi sallallahu alayhi wa ak li mu daj ngir sopp yonente bi sallallahu alayhi wa kon ci waxam ak ci jëfam rek la ñuy sukkandiku ngir mën euh, wax ci ak bëggam yonent bi donte du lu ñuy natt mbaa lu ñuy xayma itam ak euh, digganteem ak gàmmu waaw ndax euh, ci dundal ko ak la mu wax ci gàmmu incha allah bi danañu ci ñëw sunu kem kattan ñu ñaan yàlla mu defal ñu ci tawfiq ba niñ ko bëggee ñu defee ko noonu incha allah. yi ñaari tomb yooyu. la ñuy waxtaane mënul sax ñaari tomb te fekk benn la muy cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Cheikhul Xadim ak euh, gàmmu sëriñ bi ak gàmmu ak bëggam yonent euh, nañ ne kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi farata la farata la euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ci xadis ne laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa annaasi ajmain kenn ci yéen du gëm ngëm gu mat lu dul ne man dama ko gënal ñëpp ci nit ñi ay doomam ak ay wayjuram ak nit ñi ñëpp ñépp kon kooku dañuy gis ne bëgg ko farata la ndax bëgg ay wayjur nag moom la ñuy ci bëgg ay wayjur kon da nga gis ne bëgg ga euh, farata la moo tax Cheikhul Xadim di wax ne wa salli dëban ala man furido yaa yàlla yàlla na nga julli ca ka nga xam ne bëggu ko lu ñu farataal la ah, buñ delloo ci alxuraan itam dañuy gis borom bi tabaraka wa taala di wax ca suuratu tawba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله برام دي واخني سين سين سين دوم سين ويجور سين دوم ييك فير ييك سوخنا ييك فامي ييك علال ييغي ندي فاغو كوميرس ميغي خاني ييغي جي كير كيري تا بانكو بيرت نخ اك سين دكو واي ييغي ndax yii moom ngeen bëgg gën a bëgg ci yàlla akub yonentam ak jihaat ci yoon yàlla na gis ne mboolem lu nit di dajale ci àddina eh, ak lu mën a importance bu mën a am ci yow bëgg yonent bi sallam moo ko war a jiitu ci yow ginnaaw bëgg yàlla moo tax borom bi di ñu ne ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi sallam moo gën a ci jullit ñi ci seen jëmmi bopp yi kon nit ki balaay ngëmam di mat faw day bëgg yonent bi sax bëgg gu wér ba nga xam ne moom moo ko gën a lépp ci àddina euh, ki ñuy waxtaane nag foofu la tolloon ci ak bëggam yonent bi sax sallam comme ni ko alxuraan waxee moom it euh, sunnam indi ak bëggam nga xam ne bëgg yonent bi sax sallam farata la ju ñuy mën a gis ci alxuraan waaye ci sunnam te bëgg ko itam ak euh, ànd ak moom ca àjjana la ndax am na benn xadis boo xam ne dafa wax anas ne ko yaa bunayya آه، إن قدرت على أن تمسي وتصبح ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي أنا موي وخني آه، متكنمة وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة لم آه، ko wax mooy boo manee di xëy دارا gont te sa xol bi dara dara du ci nekk mu ne ko waaw boo ko mënee def ko daal ciy teg daal kon ndax loolu ci sama sunna la bokk te ku dundal sama sunna bëgg nga ma te ko ma bëgg da ngay ànd ak man ca aljanna kon loolu dañ ciy dégg ne bëgg yéen ànd ak moom ca aljana la waaye itam nag dañ ciy dégg ne kenn mënu koo bëgg moom te dundaloo sunnaam bal buñ bëggee yàlla sax dañuy topp sunna seen bi sallallahu alayhi suñ borom daal ñuy euh, bëgg kon ni mu ko waxoon qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah ku bëgg yàlla sopp la rek daal di topp sunna si yonent bi saa sallam ok kon loolu bëgg yonent bi saa sallam waajib la ci euh, nit ak jinne ak euh, malayka xatta xayawaan yeeg jamaadaat yi sax lenn nag ci taarix saxal na seenu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lenn ci jëf ni ko imaam Moussa doon junje sànq am na ci lenn ci xayawaanaat ak ay jamaadaat yoo xam ne jëflante na jëflante ak ñoom ñu wane loo xam ne ak sopp yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam la naka nonu sahaba yi non len melon ci ñom ba tax ñuy mën xex ak seeni bay ñi di xex ak seeni dom ñi di xex ak seeni frère ñi di xex ak seeni xarit ndax ginnaaw biñ tuubé ba dugg ci l'islam ñat ña desoon ta tuubuñ bi seeni ay mbokk dañu doon jaamarlo ak ñom di xex dañ doon jaamarlo ak ñom di xex ba amna ben hadith bo boo xam ne imaam Buxaari indi na ko jële Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul muy wax ne yaa rasulallah law chita la ataytuka bi ra'si bu la neexee ma indi la boppam yaani bopp way juram ndax abdullah ibnu ubay ibnu salul moo nekkoon naafiq bu mag boobu nekkoon madinatul munawara doomam nag bi abdullahi ibnu abdullahi ibnu ibnu ubay moo waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bu la neexoon ma indi la boppam bopp baayam lay wax de kon lii ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lay mën a ndax jàkkaarloo gu jëmmam ji bëgg cofeel gu cofeel gañ gañ ko ëmbaloon ngir lislaam ju tedd jëm leen indil moo sax wan ñu mën a xeex ak seen wayjur ak seen lépp xataa Urwatu bnu Mas'ud keroog ca euh, sulxul xudaybiya biñ ko yebalee ba mu ñëw ba gis saxaaba yi niñ mel ci waggar yonent bi sallam ak bëgg gi ak cofeel gi ak maqaama mu rëy min ko wàccee fan ko teg dafa ba mu delloo ca waa Makka daf ne leen man day dem naa euh, Xaysar gis naa nguuram gaag waa këram ya dem naa gis naa euh, buur euh, gis naa Kisra gis naa nañ mel gis naa itam Najaasi na ko waa këram ya di fonke ko waggar waaye Muhammad mii day gisuma mu kenn kun masa màggal ci àddina ni ko waa yi màggale daal fa wallahi ma tanaxama Muhammadun naxamatan إلا وقعت في كف رجل منهم فدنك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا طورد أكادوا يقتتلون على وضوئه ذلك جن محمد دخاسا لكل دلنه بلا ملا سوف نيوم جكنت نينكو با كين گاو كابتي كو تي لوخوم دا تي رايو تي او يرامم اك تي كانامم اك تي ادرام بولين ديغلي ديغلي دنجي خيتو كين كو تي نيك دا ngay لوله bu dee jàpp dañuy xaw a xeex daanaka ci njàpp mi ngir di xëccoo desiti jàpp moom yi di ko naan foofu la ak bëgg mënoon yem te sahaaba yi ridwan ridwanullahi alayhim fii lañ nekkoon ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam loolu ko dogal ci képp koo xam ne sa xol am na as lëf ci leer mbaa nga am dara ci ak texe da nga sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel goo xam ne doo ko yemale ak dara te loolu sahaaba yi ci loolu lañ nekkoon waaye ni ma ko waxee woon nit ak jinne ak malaika ñëpp non lañ ko soppé hatta ba ci hayawana di ak jamaadaat di sax non lañ soppé ñu bi saa euh jàng nañ ci taarix ëkk go xam ñu yonent bi sallam biñ ko defaralagul minbar ci da lan taxaw di khutba ci dan wëru waye ginnaw biñ ko defaree minbar ba mu wara a fofu ci ëkk gi dem ci biir jaatam ci minbar bi ëkk gi dafa binni ba ñëpp dégg binneem nga mom la serigne ci di wax ne qad hanna jid'u nabi id anhu muntaqilun hanina sakla allati fardanha khsirma ca xasida dañuy wax xasidaam euh, dañuy wax al mimiya mu ne xad xam ne binni na jizun nabi ëkkub yonent bi sallallahu alayhi wasallam is anhu muntaqilun ba muy tuxoo fa moom di dem ci jàkka ji kon loolu dañuy gis ne coxeelu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waral ba muy ko moom di dem mu binni ba ñëpp dégg ko mu binni ba ñépp dégg ko te loolu noonu la mel ci jamaadaat yu baree bari ak ci ndundat yi yi ñu tuddee xayawaanaat yi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag daana wax ne ànd ak lii lépp na sahabe ni meloon mom ak lépp da na wax ne mom yonent bi sallam ñi gën tar ci sama xeet wi ak bëgg manam ñi nga xamni ne ñoo ma gën bëgg ci sama xeet yi aw nit lañ ñuy doon wax ne ñoy ñëw sama ginnaw waaw Cheikhul Khadim mom bokku na ci ñooñee ndax ak bëggam mëne su ko xeer ci ne ma ko waxoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wax ne euh min ashadd ummati li hubban nas yakununa ba'di ستجدني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله وماله ñi gën a ñi gën a tar ak cofeel ci sama xeet yi day aw nit lañu ñu wax ne sama ginnaaw lay ñëw kenn ci ñoom dana ngiijoo pour mu gisoon ma day joxe alalam ak famiyam maanaam waa këram yëpp mu ne inna qawman ya'tuuna min ba'di yawaddu ahaduhum an yaftadi bi ru'yati ahluhu wa maaluhu tuuba liman aamana bi wa lam yarani am na aw nit yoo xam ne dana ñëw sama ginnaaw kenn ci ñoom dana ngiijoon mu jotoo alalam ak wa kërëm yépp ngir gis ma teg ma bët man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te it tuuba liman amana bi wala mu yene texe ñeel ñi nga xam ne dañ maa gëm te gisuñu ma te lii day sëñ Tuubaa sax tatbiq na ko ndax moom wax na ne mahat mahabbati al muxtaari sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada maanaam bëgg gi ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi far na geneen bëgg gu mënoon doon maanaam bëgg gi ma waroon a bëgg am koom ak gi ma waroon a bëgg ay famille ak ay doom ak yooyu bëgg gi mu bëgg yonent bi saa salaam waaw dami wa ahli wa awlaadi fida'u lahu abdan khadiman lahu mutkan li sanada sama deret sama wa keur ak samay doom def naa ak njot muy ci yonent bi saa ngir bëgg gi ma bëgg ma doon ab jiam bu koy liggéeyal kon lii nii lu tatbiq la waxees na ne yonent bi saa daana wax ne waditu anni laqitu ixwaani أتني يكون ما ديك سام بقية إني لا مشتاق إلى إخواني متى ألقى أحبابي أصحاب عبد الكرام رضي الله عنه دعاني يقول لاجني كو ألفنا إخوانك قال وغني أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا ولم يروني yin samay sahaba samay and ngeen waye samay mbokk yoyé may wax moy ñi nga xamné dañ may gëm té duñ ma gis jamono di ñëw ci kaw bëgg gi nga xamné farata la ci ab julit alquran indi ko ñu fekk ko ci sunna saxaaba yi meloon na ni ci seenu doxin ba ci jamaadaat yi sax bëgg ko bay manifesté wu bëgg googee Sëriñ Tuubaa foofee la nekkoon ci gën a kawe himma ci sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën kawe ñëpp himma ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam nga moom dafa wax ne diine xubbuhu wa xubb zikrihi wa abdihi rasulihi wa shukrihi nee na sama diine mooy bëgg yàlla bëgg alquranam bi waaye bëgg jaamam ba di ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam man diine mooy bëgg yàlla ako ab yonentam ak alquran ji ak di ko sant kon lii dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekkoon ci daytalu bëgg moom Sëriñ Tuubaa ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak lépp lu laal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci gën a xuus ci kanam kanam insha allah kon ginnaaw bi way juróom faatoo moom Cheikhul Xadim radiallahu anhu nga xamni ci lay soogay wote lam wote ci lay doog wax ne al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asalu Allah al-wafa neena tay jii de laa jaayante ak bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko ma ñaan yàlla mo matalal ma jaayante yi ndax nit ki bo bëggee liggéeyal ko wala nga bëgg a ci mom la kon li nga wara ñëk def moy jox ko ci lépp mu doon fa wax ci la nga aju ci mom ba nopi motax mom mu ne awalu mabtada bihi alxadimu taalluqun bi man lahu taqdim li nga xam ne moo jiitu ca la nga xam ne kii di gëlante sallam tàmbalee na ko mooy taalluqun mooy aju ci moom yonent bi sallam maanaam jébbal ko léppam dañuy wax jaayante ak moom moo tax mu ne baayaahu alqalbu maa al aqlaami ka misli baayaahi almal al alaami nee na sama xol bi ak samay xalima day jaayante nañu ak mom nekke sahaba ya téwon di jaayante ak mom nit mu talal loxom nit ci tek teg loxo nekke jaayante ko mel ne sama xol ak samay xalima jaayante ak mom moo mané mali si wal siwal muntaqa lil malik al wali wasilatan wa kafaani kull ahwali aw ma lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila ta moo may fegal mépp tiit kon dafa jaayante ak mom euh amna fu ñuy wax ne laa abtaxi gayra annabi wasila وفي العداء والجهل جميلة دوما تاك دار لودول ينتبه سنة الله ميتا وصيلة آه. ما تخرج من ظهر لي أن رسول الله وصيلتي قطعا إلى الإله فإننا ينتبه سنة الله ميتا وصيلة تلو دوك ميتا وصيلة يمي يبتي الله من بان لكل من له معقول أن وصيلتي هو الرسول كيف كأمم كالخمجن من سما وصيلة مويا نتبه صلى الله عليه وآله وسلم kon lim njëkk def mooy jaayante ak moom ba noppi jëfee jaayante ga nag ci bëgg ko bëgg gu mat sëkk ba mu gënoon ko léppam waaye dëkki ko liggéeyal ci tagg ko ak di julli ci moom waaye itam euh, cofeel goo xam ne amul fu mu yem koo ji nag ci yente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne euh, seen diggante ñoom ñaar ci zahir euh, romb ne junni at yu ay téeméer téréwul bi mu ñëwee mu jaayante ak moom lima ma ko waxee jaayante gu sell ba noppi matale jaayante ga dafa wax ne ana law lam ajid min atharihi sallallahu alayhi wa sallam illa manzara hadihi an-nujum was-samaa'i allati tahaqqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kana ينظر إليها لوثقت بأن نيتي فيه ومحبتي كفيلتان لي بقضاء الحاج lii mooy gaayat li himma maanaam himma fii la mën a yam daf ne bu ma fekkutoon dara dara dara ci jeexiti yonent bi sallallahu alayhi wa dégguma am njàngalem gisuma téere bu mu indi gisuma dara lu bokk ci moom dara jeexitam waaye mu wóor ma ne Mamzar paysage bii nga xam ne euh, moom laay gis moom la daan gis mu wóor na ma ne biddiw yi may xool moom la daan xool waaye mu wóor na ma ne asamaan sii ma tiim moo ko daan tiim nee na lii day dong bu ma ko amoon ci yonent bi danaa dëgërloo ci yéene ju sell ak sama cofeel ci moom nag nee na yéene ju rëy ak sama cofeel ci moom nee na danaa sukkandiku ci ñaar yooyu ba am faju aajo ci li ma bëgg am jébli ci jox ko jo jokk ci moom yonente bi sallallahu alayhi jaayante ak moom waaye ànd ak yéene ju sell ak sopp ko donte gisuma gisuma dara jeexit ju ne ci moom ju ma fekk ci moom lu dul ne asamaan ci ma tim daanu ko tim biddi yu may gi daanu ko gis nee na dong moo ko amoon ci moom danaa dëggal yéene ak cofeel gi ma am ci moom jëf ba am sama fajug aajo ci moom lii nag fa la himma mën a yem loolu fa la himma mën a yem ah moo tax mu wax ne yaa sayidi yaa rasul allah yaa xorani inni la dal baabi kal maqsuudi fi fi xorani yonente bi saa sallam gën ji mbindeef moom rek mooy sama xememteef daana giñ naan daan giñ ci yàlla di wax ne siyaara xabru bi yonente bi saa sallam moo gën ci man addina ak li ci biiram ngir sopp yonente bi saa sallam yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil il biladi zahaba giñ naa ci yàlla ne dem siyaara ji yonente bi saa sallam dem siyaara ji xabroom ba moo moo ma gënal man dëkk yëpp ñu duyal moo ko ba mu fees dell ak or nee na dem siyaara ji yonente bi saa sallam moo ma gënal na fu wax ne yaminu ahab ilayya min mil'i buyuti yadhhab nee na giñ naa ci yàlla ne dajeeg moom moo ma gënal man dem gis ko moo ma gënal sama kër yëpp ñu duy ko ba mu fees dell ak or kon loolu euh, fala ak cofeel mën a yam ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy daytal ba waaye yëmu ca daf daan jotoo léppam ngir sopp yonent bi sallallahu alayhi muy boppam alalam ak ak waa këram lépp امنا فم يخني فديته لو كان يفدى بدمي وبلساني ويدي وقدمي دمي فداء لخروج دمه ومرضي فداء جسم دائه دمي واهلي واولادي الفداء له عابدا قديما له مذكا لسندا نينا جوتنا بودون كوني جوت لموم يونتي سانتام جوتنا كو سما دريت اك سما لامي اك سما لوخو اك سما ندغ سما تانك daa xam ne sama sama deret ak njot la ngir génnu dereta moom dami fidaa un li xuruji damihi nee na itam sama tawat jote naa ko saafara aw yaramam moom bu ko dara naree dal mën naa tawat waaye mu ne sama deret sama waa kër samay doom lépp jote naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu nag dafa yemutoon rek ci ay wax bëgg gi daf koy feeñal saa su ci biir ay waxam waaye itam ñu di ko gis ci ay jëfum bal liggéeyal yonent bi saa salam sax moo waral ñu exilé ko loolu la waxal boppam nee na qusuuri xolat wal ahlu anni tafarraqat li madixi alladi anhu lmadixu qasir samay kër wéet nañ sama njaboot tasaaro ngir lan li madixi alladi anhu lmadixu qasir ngir tàgg yonent bi saa salam rek moo waral kon coono yi mu daj ci tukkeem beeg lépp kon da doon feeñal moom ak cofeelam si yonent bi sallallahu alayhi sallam ba fam mën a yam ci feeñal bi دجين لما بجين دي سانتنا بالله أحببت رسول الله عليه خير صلوات الله أحمدنا المختار قطعا لأحب من من خلق من هو إلهنا الأحب رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق من كل خلق يحمد دي وخني جينا نبغنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني ينتبي صلى الله عليه وسلم amul benn sik sàkka ci ne mboolem lu yàlla bind moom laa ci gën a bëgg foofu nag feeñal ak cofeel ci yonent bi saa sallam foofee la mën a yem demoon na ba wax ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bànneexub addinaam muhammadun zinatu dunia wa lazzatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja nee na yonent bi saa sallam mooy bànneexub addina mooy taarub addina waaye itam mooy bànneexub addina demoon na ba wax ne yonent bi saa sallam mooy diineem sax yoo xam ne diini ibadatu ilahi nnaasi bi xubbi بحب مختار من الأناس ثم الدين ما يجام برم نني وآية بق غند بالدف دين يحب الله مع حب الرسول عليه تسليمه مع كل رسول ثم الدين ما يبق أنت بي صلى الله عليه وسلم ما يبق يا الله أكبق بي صلى الله عليه وسلم دين خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل لأن ثم الدين دي mooy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca nam ko bëggee bi maa yaxtaara waaye du du ci ne ma neex daa ca nam ko bëgge nee na loolu mooy sama diine waaw euh, eggoon na ba ci ne bëgg yonente bi sallallahu alayhi dox na diggante mu bëgg am kom wala dara waaw nee na samam koom man muy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ghanimtu xubbal Mustafa wa aktafi bi zaaka fal mu'ti kafaafan yaktafi nee doyloo naa sëkk bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam doy na ma walis am koom ak yeneen yu yu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doonoon xememteefam ci lépp lu mën a doon nabiyuna al mustafa xayrul wara xoredi fi kulli shay'in wa ma yabaahu abaahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama xememteef moom gën ji mbindeef ci lépp lu mën a doon mooy sama xememteef te lépp loo xam ne bañ na ko man bañ naa loolee lépp lu mu bañ man dama koy bañ waaw yaqini yaqini yaqini yaqini hubba ma la yuhibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muqalladi أقسمت بالله إني إني للنبي أبدا خل وحب وما أباه يباه في هذا وما يباه أباه طيب من وما أباه يباه جنة في على نيون أنت بسم الله سما ميون أنت به سما صبي سما بخارطة تلف لو خنا بناكم من بناكم ونك دفع يموتون رك شيء أيوة بجيجي دفع كوي سينال ساسوني كبير أيوة هم أيام يدك جيسي أيفهم بل liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax moo waral ñu exilé ko loolu la waxal boppam nee na qusuuri xolat wal ahlu anni tafarraqat li madixi alladi anhu lmadixu qasir samay kër wéet nañ sama njaboot tasaaroo ngir lan li madixi alladi anhu lmadixu qasir ngir tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo waral kon coono yi mu daj ci tukkeem beeg lépp kon da doon feeñal moom ak cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fam mën a yam ci feeñal ديجين عندما بغين دي صلى بالله احببت رسول الله عليه خير صلوات الله احمدنا المختار قطعا لاحب من خ... من خلق من هو الهنا الاحب رسوله سيدنا محمد احب لي من كل خلق من كل خلق يحمد دي واخني جينا ني بغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي واخني يونتي بي امول بن سيك ساكاتي ني مبولم لو يالا foofu nag feeñal ak cofeel ci yonent bi sallam foofee la mën a yem demoon na bay wax ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bànneexub adina muhammadun zinatu dunia wa lazatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy bànneexub addina mooy taarub addina waaye itam mooy bànneexub addina demoon na bay wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy sax di wax ne diini ibadatu ilahi nnaasi bi بحب مختار من الأناس ثم الدين ما يجامو برم نني وآية بق جندي من ديف دين يحب الله مع حب الرسول عليه تسليمه مع كل رسول ثم الدين ما يبق ينتبه صلى الله عليه وسلم ما يبق الله بق ينتبه صلى الله عليه وسلم آه. دين خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل لأن ثم الدين دي mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca nam ko bëggee bi maa li yaxtaara waaye du du ci ne ma neexee waaye ca nam ko bëggee nee na loolu mooy sama diine waaw euh, eggoon na ba ci ne bëgg yonent bi sallallahu wa sallam dox na digganteem bëgg am koom wala dara waaw nee na samam koom man mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganimtu xubbal Mustafa wa aktafi bi daaka fal muxti kafaafan yaktafi nee na doyloo naa sëkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na ma walis am koom ak yeneen yu yu mën a doon yonent bi saa sallam moo doonoon xememteefam ci lépp lu mën a doon nabiyuna al mustafa xayrul wara xoredi fi kulli cheyin wa ma yabahu abahu yonent bi saa sallam mooy sama xememteef moom gën ji mbindeef ci lépp lu mën a doon mooy sama xememteef te lépp loo xam ne bañ na ko man bañ naa loole te lépp lu mu bañ man dama koy bañ waaw yaqini yaqini yaqini yaqini hubba ma la yuhibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muqalladi أقسمت بالله إني إني للنبي أبدا قل وحب وما أباه يباه في هذا أدنى وما يباه أباه طيب من وما أباه يباه جنات يالنا ينتبه صلى الله عليه وسلم سمم ينتبه سمم صبي سمم خارطة اللب لو أنا بناكم من بناكم سمم سافر ويرم أكسم سافر الخل مي محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى الله عليه ربي nee na yonent bi sant la mooy saafara jëmmam waaye itam mooy saafara xolam yépp itam mooy wax ne tudd yonent bi salaa salaam mooy wéttalam waaye mooy mbégteem itam muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa adai wa raxati taaxa sururi sarmadan wa junnati an ilmamaati wal ada wa jannati حبيبي أنيسي في اغترابي وتربتي شفيعا غدا يوما يلاقي العدا تلبا nee na Muhammad tudd ko mooy sama wéttal mooy sama mbégte mooy sama leeru xol waaye itam samay cër ci lay noppaloo itam mooy sama noflaay mu wax ne moom yonente bi tooxe mooy sama mbégte ba faw mooy sama pakk bi nga xam ne moom mooy fegal dee yi ak loraange yi mooy sama ajjane itam nag طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي يعني دم sama soppe sama wette la fi xtiraabi wa turbati biñ ma exilé ba yóbbu ma jàpp ne dañ may sànk fa ma nekkoon étranger ak bu ma nekkee ci sama kër gii mooy sama wéttal mooy sama xarit waaw te it mooy aji sama ram mu ëllëg yemal xiyaamatil akbar sëñ Tuubaa wax ne ne li gën a rëy li gën a neex gën a gën ci loo xam ne aw làmmiñ dana ko tudd ci tur yi mooy turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te nee na yàlla daf koo terale moom cheikhul xadim turu wu rëy wu tedd woowu noonee mooy mu tudd ahmadu ahmadu bamba te nee na loolee fa daaka فذلك منتهى النعمة التي يستحق الشكر والثناء على المولى الكريم nee na loolu day mooy fala teraanga mën a yem mooy daytalu teraanga fa dalika muntaha ni'mati maanaam mooy daytalu teraanga yoo xam ne maanaam yaay na nag ma di ci sant di ci tagg borom bi tabaraka wa lan mooy xéewale gim ma xéewale ma tudd turu yonente bi sallallahu alayhi wa akbar yaa cofeel euh, fii la mën a yem te na ak soppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon màgg lahzatan ba'da lahza fi qalbihi biir xolam bëggam yonent bi saa sallam day màgg mu ne tanmu mahabbati allati lii haajaha li alladi kulliyati qad waajaha lahzatan baada lahza bëggam yonent bi saa sallam day màgg ci biir xolam am na bi wax ne bëgg yonent bi saa sallam fàtteloo na ma leneen bëgg bëgg leneen lu mën a doon bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla te ka nga xam ne bëgg bëgg ko moom fàtteloo na ma jigéen ñeeg or bek khalis bek gawar yek lépp bëgg yonent bi santam ne fàttale fàttaloo na ma ko yun fi fuaadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa la wa minhu ma xussu jara nee na bëgg yonent bi santalam fàtteloo na sama xol bëgg menen bindeef lenen lu mën a doon ci bindeef yi rek nee na bëgg sama bëgg yonent bi santalam na ma bëgg lenen lu mën a ci sama bir xol bi loolu noonu dong la wana a demee نينا لاب ناتي بغ يونس صلى الله عليه وسلم با مجي خاميتول اي بيتيما بيتيغم اك اي غوديم مانام اي غوديم اي بيتيغم مجي ندي اي غوديم غير بغ يونس صلى الله عليه وسلم احمد من صار نهاري ليلى بحبه وقد اضاء الليلة demna bané dafa mandi ci sangres bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fakirtu min khamri min khamri mahabbati an-nabi fala في fi as-sana bi mutnibi فكرت من خمر محبة النبي من دما من دي سانغرس بدي النبي صلى الله عليه وسلم دما دان نك سي ديكو تاغ بام ابدا دم نباي وخني دما لب سي جيج بغ يالا اك بغ النبي صلى الله عليه وسلم غرقت في بحر محبة الرسول وارتجي به الرداء والقبول لان لبنا سي جيج بغ النبي صلى الله عليه وسلم لب غوغي ما لب سي جيج بغم غوغي مان سي ياكار نغرمال يالا اك نانغو يف غرقت fi baxri mahabati aljalil wa baxri xubbin wala wa baxri xubbi abdihi lxibbi alxalil nee na lab naa ci géeju bëgg yàlla ni aji màgg ji waaye ma lab ci géeju bëgg jaamam ba di ab soppeem di ab xaritam tama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na sax ci bëgg yonente bi saa sallam eggoon na ci muy muy ngéejoo naan ak a neexoon yonente bi saa sallam jël sama lex bii def ko ma ma ma def ko ca suufu dàllam ya ca ca suufu dallam ya maanaam muy dox buy dox dal au lieu que muy jóggi ci suuf wala muy jóggi ak dég walla lenn lu ñaw wala dara lu koy mat waaye ma di fa teg sama lex ba lépp lu ko war a laal yéeg ci maanaam dal ci sama lex boobee waaye tànk bi yonte sa ak dàllam yi moom tegu ci kaw sama lex bi ba dara du ko laal xaddi wala xaddi jaaltuhu turaba naalihi yaa laytahu lahadani bi fadlihi nee na sama lex bii def naa ko ca suufu ron dàllam ja xaddi wiqayatan li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yudahi aqraba nee na sama lex bi def naa ko wiqaaya muy fekk ci tànkub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp luy ñaw ko ak luy nuróog ay jiite ki jaan mbaa dara lu mën a lore nee na teg naa sama lex bii mu mu tegu ca ron ndëggu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba lépp lu ko nar a laal na dem ci sama lex bii xam nga ne loolu mooy daytalu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba wax ne bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama ajjana mooy sama farata mooy sama naafila mooy sama leeru xol mooy sama yóbbal bu ba ca yàlla borom bi tabaraka wa taala wasilati wa jannati muhammadi sallallahu alayhi wa sallam samadi mooy sama wasila mooy sama àjjana moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasilati wa junnati wa jannati mooy sama wasila di sama pakk bi may fegal waaye itam mooy sama àjjana faridati naafilati wa sunnati waaw am na fu muy wax ne wasilati wa qudwati wa jeexi muhammadin muhammadun xayrul wara dil jeexi sama wasila sama roykaay sama daraja lépp mooy yonente bi saa mi def borom daraja ji allahu akbar nee na muhammadun nuuru qalbi astaniiru bihi wa rifqati ahlu badrin muddatal umri nee na yonente bi saa mooy sama leeru xol gi nga xam ne ci moom lay niitoo ci lay laay sàkkoo leerlu mooy sama àndandoo itam ak waa ahlu badrin fuñ nga mën a jëm maa ngi ànd ak ñoom rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fi lbahri xiina aduuru te asiru dafay ne sama àndandoo mooy téeréb yàlla bi ak yonente bi salaa sallam ak àndandoom ya saxaabaam ya ñoom laa àndal fu ma mën di wëndeelu ci tukkib géej cofeelam googu nag moo tax mu jël léppam jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jox hadiya ak rooxam alalam ay këram ba ci am réewam sax joxe wàlle na ko kii moo mën a joxe hadiya nag jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatan lil mustafa baabi naam mboolem sama alal ak samay daag samay xelima def naa ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yamu ca de nee na juttu lahu l yawma bi ruuxi wal badan wa walidi wa walidaya fi l alam نينا جوخنا كو بيسنا كتاي جوخنا يونت بي صلى الله سما روح اك سما يارم اك سما دوم اك سما اي ويجو كي مو مانا جوخه نينا ليپ جوخنا كو يونت في العالم في الفين لو نفان نا زمامي اليوم جعلته ابد سيد احمد لطاعه صمد نينا بيسنا كتاي سما نوفو تكنا كو تي لوخول يونت بي صلى الله عليه وسلم غير توبي كو يالا لطاعه صمد لك يا نبي منازلي ومواطني ومواضعي لك بالعلي متعوذا يعني يو جوخنا لا يو يندي صلى الله عليه وسلم يا موم سما اي كير سما ريو اي سما تورخلوك سما لب يو رك يا خوم دين مين ديف عليه الصلاه والسلام حتى با تي اي كيرم صح يعني جوخي نكو لك لساني مع الجناني ولا اداني كالشعر لم وقت مواهب حتى نينا atam ak wéram balaaxam fafaham ak demam ak dikam lépp hadiyatan lil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw hab lin nabiy sanati wa shahri wa hab lahu sirri ridan wa jahri nena joxna jox naa bi sallam yow yàlla nena joxal yonente bi sallam sama at sama weer ak sama lépp محمد وسيلتي وراحتي له بلاغاتي له فصاحتي sama wasila sama noflay nee sama balaaxa mom la ñeel way sama fasaha mom la ñeel lool nak lay waxe kete ndax lim bind li ci ëpp julli ci yonent santalam ak tag yonent santalam diko di ko kañ waaye di julli ci mom bañ nako ba dundam gep da ko xaajoon at mi da ko division par 2 محرم سفر ربيع الاول ربيع الاخر jumaada الاولى ula الثانيه موي muy six mois yooyu nee na juróom داماي weer yi damay julli ci yonent bi sallam شوال دول قعد دول الحجة جروم بين ويريو ينينا لما يتاق يونس بي صلى الله عليه وسلم مخالك غانا أدمي جروم بين ويري دي جولي جموم جروم بين ويري مغاي تاق صلاة الستة بما دي ستة تأتي هبة نعن فلاي كون نون لو دفون أك جندم مم لبم دوكو جوخ يونس بي صلى الله عليه وسلم دو أك شفيل تي أولا من يرك وخنا كون نم كون منا وخي نب نم كون منا اكسبرمي اكسبرمي وو نكون نونو نم كون منا جفي ف كتنم يم jëfe noon ak bëggam yenente bi sallallahu alayhi ak ci topp sunnam ak ci yeesal diineem soppoon na yenente bi sallallahu teg ko foo xam ne musta nangu ku gam-gam la yenente bi sallallahu ak dara mbaa nga jéem a euh, ñaawe teggin jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wala nga waaye fal dara yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolee cheikhul xadim radiallahu musu koo nangu waaw nee man jaala fi ru'yati man saawaahu shaiba muxjalan wala yaraahu nee na képp kuy wëndeelu ñu ne ko loola tax a jóg mu ne waaye gis ku yam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gis koo koy gam-gam leel nee na bu dee moo la tax a jóg nee na shaiba muxjalan wala yaraahu nee na da ngay da ngay sonn ak kersa waaye doo ko gis abadan daal ne billahi lam yati walaysa yati mislu bu ni mis walaysa yati mislu abidillahi zil ayati gis naa ne musta ñëw te du ñëw lam walan waaw mus sa ñëw te du ñëw mukk ku mel ne doomi abdullahi ja wallahi lam yati walaysa yati xalqun ka misli sayidi saadaati nee na naa ne mu sa ñëw te du ñëw mukk mbindeef mu mel ne sanguf sang yi te mooy yonente bi salaa sallam ku mel ne moom dootul ñëw di abadan waa mu wax ne dogal bi nga xam ne mooy dogal du feeñalati am kemam musu ko feeñal te du ko feeñalati mukk laa yudhiru alqadaru mithlahu wa lam yudhirhu wa huwa alxalqu walfadlu alam yàlla mi aji coobarewu daa nam mu ne ku mel ne moom mës ta ñëw ci les ca la weesu waaye lii ñëw it ku mel ne moom du ci ñëw mukk moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam shaa alladi al amru lahu wal xalqu an laa yakuna kan nabii xalqu nee na la soob borom bi tabaraka wa taala daal aji dogal ja nee na la ko soob mooy ku mel ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du ko bindati nabiyuna ahmadu faaqa al ambiya wa rusula wal amlaaka inda rabbiya sama sang ba yonente bi sallallahu nee na moo kawe yonente yi ak mboolem ñi yónni ak malayka yi fii ak fa borom bi tabaraka wa taala inna bana abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdihi xaaliqu zaman xaaliqu zaman nee na ki bind jamono day nee na mu musta feeñal kelaweesu woon tadu feeñal ci liy ñëwati kum mën doon ci ñooñ ñaar ñëpp moo ne ci sa kaw nee na doomi abdullahi ja faaxa kulla man abdaahu aw yubdihi xaaliqu zaman moo kawee moo ne ca kaw képp koo xam ne yàlla feeñal na ko muy lu weesu ak koo xam ne feeñalu ko te dana ko feeñali ji ba addinay tukki xoo mën a doon ne neen yonent bi saa sallam moo la féete kaw moo la ëpp daraja ahmaduna almuxtaaru faaqa alfaiqin alqudamaa walxiyaar allaaxiqin kawe na way kawe ya ñu jiitu woon ak tànne fi ñëpp yonent bi moo ne ci kaw muhammadun zaharat jahran siyaadatuhu li kulli xalqin zuhura shamsi wal qamari waaw nee na sangam nga féete kaw ñëpp mbindeef yëpp nee na feeñ na feeñu jant ak weer nga xam ne kenn du ko nattale ku nar a am daray texe ci yàlla bidayatul maahi nihayatul xiyaar faddalahu ala alwaradul ixtiyaar waaw nee na tàmbali bi yonte bi maanaam fa tànni fi yam fa la tàmbalee moom ci ay gënal yàlla moo ko jiital gënal ko ci kaw mbindeef yëpp borom tabaraka wa النبي صلى الله عليه وسلم لقنا أي مراتب أك أي درجات yoo كل ne ku dul yàlla loolee ump na la haada nabiyullahi ma la yaalamu له alladi lahu درجة المختار فاقة الصير غابت عن الألباب فاقة العبر أن يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون لأن ينتبه صلى الله عليه وسلم لقنا أي درجة لو خنا كل برم لوح المحفوظ كل يلا درجة ينتبه صلى الله عليه وسلم أمبنا له طيب لقنا أي درجة لو fàddu na wëlis ay xel ah, du lu ñuy xiyaas di ko mën a natt nee na ana kenn naka la kenn di sikk sàkka ci doon gi yonte sansam doon eh, ki kawe ñëpp an na yashukku ahadun fii kaw ni rasulina al muxtaari fawqal kaw ni te dem na bay melal dem na ak coxeelam ci yonte sansam egg na ci mu waxe waxeen woo xam ne miinee su ko woon ci waxu uh, cheikhul xadim radiallahu anhu ngir rek bañ kenn ku dendale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dara day melal ñi nga xam ne dañuy xiyaas yonent bi sallallahu alayhi ak keneen ci mbindeef yi maanaam ku képp koo xam ne xiyaas nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak meneen mbindeef mu mën a doon dalay melal ci ak dofe ak réer ak mbewteeg xeet yu bare bare bare la lay melal nee na safiha man yaqisuhu bi ahadin min jumlati saadaati tulil abad nee na ki nga xam ne da koy xiyaas ci kenn di gam-gam leen ak kenn nee na ab dof la waaw dafa dese inna alladi lam yarahu xayra alwara fa huwa safihun la yufaariqu xayra alxiyaar inna alladi lam yarahu xayra alxiyaar fa huwa safihun la yufaariqu albawaar ki nga xam ne gisul nañu def saa sallam mooy ki gën ci li yàlla bind mooy tànneefu mbindeef yi nee na ko koy ab dox la boo xam du tàggoo ki musiba ba faw baana liman lam yaku daa tamarrudi sabaqal sabaqa nabiyi wa rasulil mufradi nee na feeñ na képp koo xam ne maanaam nekkoo mutamarrid nee na féttéerlu woo leer na la naññi ne yonent saa sallam moo jiitu ñëpp tafdilu ahmad bni abdillahi yaalamuhu gayru gabiyillahi nee na ngëneelu yonent saa sallam ci kaw mboolem mbindeef yi képp koo xam ne du aji bew aji bew juy fo képp ku dul kooku rek nee na euh, kawe gi yonent bi saa sallam ak ku gënam ci mboolem mbindeef yi nee na leer na la nañ ba mu des euh, ko beew koy fo rek nee na xujiba qalbu lam yuqaddim ahmada ala al wara wa sa'yuhu la yuhmada nee na képp koo xam ne jiitu lu yonent bi sallam ci ak gën ak ci kawe nee na ab xolam dañ koo yiir ba amul daray leer waaye itam lu mu jëfit na xam ne yàlla loolee du ko nangu ndax inna abal qasimi la yuqaasu bi basharin dalla alladina qaasu nee na bàyyib qasim abal qasim nee na laa yuqaasu bi basharin kenn du ko xiyaas ak menn mbindeef nee na ku ko def rek sànku nga حتى مسلمة الكذاب بمي وقتاً تنك مم وخنا وخن تنان مم كي وخين وخن ميني سوكو سخ كي وخينم نيرلان مبيو تيجي قد دوغ بمي خياس ينتف صلى الله عليه وسلم أكبا فمرك دفع وخنا ذل مسلمة حين جارة مم في السماء والأرض لا يجارة ذلة من وسط الملا تغوطا لا تغوطا وبال عريانا وجهرا ضرطا ذم وقاد نفسه للخجل وفاته كرم خير مرسل nee na torox na moom mu Musaylima ba muy dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ka nga xam ne diggante asamaan ak suuf kenn du ko ci dëkk di moroomante ak moom nee na gan toroxtaange la torox zillatu man wasal ma la taxawutoo nee na tànge koo xam ne dafa ñëw ba ci digg mbooloo mi mu dem fi ay ginnaaw kër nee na wa baala uryaanam mu def yaramu neen di tuur ndox waaye muy muy muy doxat muy muy muy muy galawal ñu baal ma ci baat bi ni mu ko tuddee waaye loolu lay firi ci wolof muy gelawal ay gelawal yu xumb di daw di dem di gelawal gelawal yu xumb daaye nee na torox na waaye itam womman na boppam jëmee ko ci kersa mm. euh, karamu xayri mursal yi tedd nga yonent bi sallam itam faat na ko du am dara ci yonent bi ngir dëkk googu mu ko dëkk nee na man zanna anna al muntaqa mithlu al wara fa huwa gumrun qalbuhu ma nuwira képp ku yaakaar ne yonent bi sallam moroomu menn mbindeef la nee na kookee day ab dof la ab dof la boo xam ne ab xolam leerut mu daray leer waaw am na fu mu wax ne man zanna an al muntaqa lam yafuqi kull al wara fa huwa lam yuwafaqi képp koo xam ne jàpp nga ne yonent bi saa sallam kayewul mépp mbindeef nee na kookee day amul daray tawfiq waaw dem na bay wax ne man la yara ahmadana xayral wara fa zu shaqain qalbuhu ma nuwira képp koo xam ne gisul ne sunu ahmadu mii daal mooy yonent bi sallam mooy ngën di mbindeef nee na képp ku gisul loolu rek ku ko jàpput nee na koo koy aji texee di la jox ne ab xolam daray leer nekku tabban liman ankara kawna al muntaqa muham kawna al muntaqa muhammadin xayril baraya mutlaqa toroxtaange toskare ñeel na ko xam ne weddina nekku yonent bi sallam di gën ji mbindeef alaa yamuutuuna li gaydin wa nakad fal xaasiduuna laa yufaariquuna kad nee na nañu nañu nañu nañu deeg seenu mer waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom day jiitu ba faw ñi nga xam ne dañ koo dañoo bañ loolee nag te teerlu ngir bañ jàpp ne moom mooy gën ji mbindéef nee na duñ tàqali kooku coono ba mukk mukk mukk man saahu kawnuhu xayral wara falahu aarun wa naarun wa ankaalun la da samadi nee ko koo xam doon gim doon gëj mi def dalaa naqari moom yéen def naa salam nee na na kookee day falahu aarun wa naarun wa ankaalun la def samadi nee na gàcca ako sawara ak i metital dongu moo koy xaar fa borom bi tabaraka wa taala waaye itam mu doon melal maanaam ak bëggam yéen def saa salam ci bëgg koo ziyaare ji maanaam bëgg gu tara tara tara tar soo demee ca euh, ربنا شكر الذي بالكافر دا في ارجو برحمته المهدات سيدنا زوري مدينته دار الرياحين لسان دار متى ما يزورها زائر لهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين يعني قدني ان ازوره بجذبه قلبي وقالبي معا لقربه نعم ماي ومات ما زياره سي اك جلبي قتش سما قل ak euh, sama sama bitti waaw sama xol ak sama xelek sama lépp nee na ngir jege ko dama daan xëcc ma di ko ziyaare ji ya rabbi zawru lbayti walmadina ziyaratan an ni riya masula yow yàlla maa ngi lay ñaan dem ziyaare ji euh, néegub yàlla ba te mooy kaaba ga waaye itam dem madinatu munawara siyaar yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam da daan ngiijoo aka neexoon yaramam wii mën a dem siyaare ji yonent bi comme ni ko xawaatirul xal bi di defee ak ruuxam nga xam ne fu toll mi ngi bànneexu ci maanaam euh, siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akuk bëggam yaa laytani qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri hatta euh, yuzila awadi aka neexoon ma dem siyaare ko sama jëmm ji sama yaram wi dem siyaare ko comme ni ko sama euh, xol bi di siyaare muy wax ne qalbi bi saa'irun wa zaa'iru wa badani qad aaqahu jazaa'iru neen sama xol bi fu mu toll mi ngi dox di ko siyaare ji waaw di siyaare yéen di waaye badani ne sama yaram wii nag nee na euh, maanaam dafa am gàllankoor dañ koo tënk gis nga ne li mu jànkonteel fi ay at yu bare bare bare bare yàlla boole kook ay noon yu am doole ñu di ko pamti pamtee Eh, mu ànd ak ñoom di liggéey li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàllankoor googu moo ko teree woon dem makka ndax Cheikh Mouhamed Diop Dagana mi ngi nettali ci irwaaw na dem ne bi mu sancee Touba def fa ab diir ba nga xamee ne mi ngi ci waajtaay ngir dem sanc ca Mbàkke Baari jolo ca ba mu wooyee suñ Mbàkke bi ko waxtaan ak moom ca lañu waxtaan bokkoon na ci nee na dafa am benn naar gànnaar boo xam daf koo waxoon ne ko ndax bëgg ngaa siyaar yonente sax mu ne ko am mu ne ko demal tàggu sa ay bokk naar ba dem gànnaar ngir tàggoo ji sëñ bi nee na da ko waroon a gunge ngir mu dem ziyaar ji rasulullah sallallahu alayhi waaye naar ba mu demee gànnaar ab diir dafa am dégg ñu ne am na ay ñol-ñol diggante sëñ bi ak tubaab bi ba euh, jàpp nañ ko kon da gis ne amoon na yéene lool dem siyaar yi Yonent bi sallam waaye maanaam yaramam wii mu amoon ay gàllankoor bu mu def waaye xolam moom mu sëjub ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa moo tax nag euh, muy wax naan sama sama sama yaram wi day mo am galankor waye sama xol bi mom toujours mi ngi koy ziaré yazuruka minni haythu ma kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati dha tayyi waaw day wax ne sama xol ak sama xel lépp mi ngi koy ziaré yaram mom dafa am galankor tafa fuadiya wala taafa fuadi bayta rabbil alamin wa zaara rawdata alhabibi kulla hin nee na sama xol ma ngay wër kaaba di ziyaare rawdatu yonent bi sallallahu alayhi wa waxtu wu mu doon neen sama xol mi ngi wër kaaba gi di ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ji am ngalanko waaye xol moom daaw fa jóg dem na sax bay wax ne xoorat ilayhima suyuuru qalbi wali tamanni qultu inda rabbi nee na sama piccum xol day day naaw dem jëm ci kaaba ga ak xabru yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam demon na bay wax nan dafa gis ne manam xolam bi de amul dara dara lu ko meuna safara ludul dem gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yutayibu alfuada zawru albayti maa almadinati qubayla alfawt waaw yaani qasadtu zawrahu wala hawla wala quwata illa billahi musjala وهو الذي عاق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب الزوار نينا نينا سما يرام بي مو ام غالان كور واي سما خول بي اك سما لامي موم اك سما خالمي توجور نيغي سيارة يننتبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم waye demon na ba galankor gog nga xamne mo galankor yaram bi batay ko dem sax da ko don tudde sik nan ya khuni aybi ani ziyara wa artaji bima dehe sikk mëntee dem siyaare ji bi sallallahu te mooy gàllankoor yaram yi la tuddee sikk waaye maa ngi yaakaar ci tagg ko mbégte dem ba mujj mu ne bal romb na sikk sax waaye loolee bàkkaar la ko jàppe ko nii zanbi hatta lam la walam ara al madinata al munawwara nee na dana ma gàllankoor bàkkaar ba demuma gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam te gisuma itam madinatul munawwara bismillah mu mujj di mu mujj di yëg maanaam ci euh, mu mujj di yëg gàcce ngir ñàkk dem ziyaare ji yonent bi sallallahu nee na dafa mujj di di ko yëg mel ne gàcce la ci moom daal waaw dafa mujj ne gàcce la ci moom ñàkk dem ngir ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yaramam wi waaye itam muy jéglu boroomam ci ñàkk dem googee di wax ne gafaru ligfir zunubi wafkukan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru yàlla yàlla nag ma jéggal ci Euh, ñàkk a dem gi te jéng yi ma tënk ba mënumaa dem yàlla nag ma ko dindil ngir sama ñàkk a dem siyaari yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal man nee na gàcce laa ko jàppe bi man yuxaatibuni fii zawri rawdatihi baytaani man xooli man bi la or ci amaaru lii daf koo indiwaat waaye wax ju ko jiitu la woon waaw zur man tuhib wa in shattat bika daar wa xaala min dunihi sahlun awaar laa yamna annaka bu'dan min ziyaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru ki nga sopp lu mu sori sori da ngaa war a dem ziyaare ji ko waaw ak sori bu mu la tee dem siyaare ji ki nga xam ne moom nga bëgg na day wax ne yasuu nii mawti wa ayni lam tara walam ara al madinata al munawara dana ma metti lool ma dem ba faatu te sama bët yii gisul xabru yonent bi salaa sallam déw ma ba gis madinatul munawara yasuu nii aybi wa ayni lam tara walam ara walam tara al madinata al munawara nee na eh, dana ma metti lool sama sikk si daal metti na ma sikk si mooy lan gàllankooru yaram bi rek nee na dana ma metti lool ma dem ba jóge fi te sama bët yii waa yi nii lam tara walam taral madinatul munawara sama bët yii gisul xabru yonent bi waaye demul ba gis itam madinatul munawara dama bay wax ne euh, sopp gim sopp siyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yahtazul bi day day day yëngutu di di di di di fudd ngir bëgg اختيار جنته صلى الله عليه وسلم فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني تيرف لي كان درنوف وقال بين دي جيمتو غير رك غير صوب دم زيار جي رودا تومبا اكن يخون ما املا ما ناوغن في تيب دم زيار لكي ازور رسول لكي ازور رسول الله من جاءنا يوم القيامه مهما هذا تخويف في دال موي دايتالو بغ في لا اك بغم يونتبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يمن تمام آه dafa dafa jël dundam gépp jeexal ko ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ku koy liggéeyal waaye léppam itam liggéeyal yonente bi sallam taiba fikri wa intizaamu kalimi fi xidmati almuxtaari faxri xalami waaw nee na samay xalaat ak samay way sonn na ak samay baat lépp ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ndamal sama xalima waaw te it loolee ni ma ko waxe woon ci wax la ak ci jëf lépp da caa dajee woon lépp daa dajee woon ci wax ak jëf ci ak bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne bo boo xol mom ci ak dundam bo defé te amul da ngay gis ne cheikhul xadim radiallahu anhu ci diggeem ak yonente bi daf ko xaj ñent xaj moy bëgg gi mu bëgg yonente bi daf ko xaj ñent xaj ba ci njëkk moy ittiba'u sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam ba ci ba ba moy تجديد ونصر دينه صلى الله عليه وسلم مانام ييفال اك تسار الدين با تي توبا نيتل بو موي تخاو ديكو تاغ موي نبي صلى الله عليه وسلم با تي موي تخاو بي جيلو سي مو jébbal naa yàlla sama borom bi tabaraka taala te du ma ko bokkaleeg dara jébbal naa ko sama bopp waaye ànd ak xeeñtu yonent bi sallam xeeñtu mooy sama soxla mooy sama ma waaw laysat li al yawma xaajatun uammiluha fi waqti faika xafwa al qalbi wal badani nee na aw ma jenn xaajo ginnaaw tey lu dul maanaam di settantal sunna si yonent bi di ko roy royu xol ak googu yaram nag ci noonu itam لا دميون تكون راي سنة سنة تفسانة وياه يسأل دينهم بتاعي نان لشي ملهم نان لشي ملهم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغر وإني أحمد يبص علوم الدين خطي مجددا لنهج النبي بالخط إذ رسمه عفا أجدد التوحيد والفروع مع تصوف حوا بروع قنون لمل تطب سنة أي تمشي يسأل دينهم E, diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ji waaye itam di ko tasaare di ko tasaare kon ci loolee la nekkoon mooy ni ma koy waxoon ñeenti xaaj yooyu nga xam ne daf koo xaaj ak bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bu dee nag diggante cheikhul xadim ak gàmm e, loolu dégg naa imam Moussa waxo sànq ci bu weeru masaana teru ñëpp dañuy xam ne weer wi teru na ci euh, ni muy amee mbégte di joxe joxe gu tar ndax daan joxe naka jekk waaye bu weeru teraw moom daana joxe joxin woo xam ne ñëpp danañ xam ne lii weer rabiul awal wi teru rek moom moo ko waral waaw euh, am nañu wax ne loo masaana bëgg ci moom rek tam jafe la bàyyil ba weeru rabiul awal jot bu jotee lépp lu way sàkku ci moom ci muy lu neex yàlla di ko am ci moom incha allah Euh, da da da doon da doon lool rabiul awal di ko waajal waaye itam bëgg ko bëgg gu tara tara tar moom weer yi ba nga xam ne bu ñëwee ñëpp dinañ xam ne weer yi moom teru na raxibu temps raxibatu temps ziman bi shahril muntaqa alayhi taslima mu ni li irtiqa nee na damay souhaité bienvenue weeru mag wi ak di ko màggal mu weeru yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam daani ila ihyai da chehri kawnuhu li xayri wara warfan xawa kulla suuladi nee na dañ maa woo jëmi ma ci dundal weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weeru gën ji mbindeef yii nga xam ne weeru gën ji mbindeef muy weeru rabiul awal wi nee na dafa demal man sama sama tawat mbaa sama tayel manam même bu ma masanam lu jagade jagadig yaram wala ni aw yaram ba baaxoo def leg leg nga gis ne yaram bi sawrut loolu mom neena na rabiul awwal bu jufse day yob loolu lépp ci mom ya xayra shahrin jaabi mursal adhhab adhabta qatan maradi wa kalkali anni mahawta kasali wa wajali wa xayrati da ismatin min xajali nee na rabiul awal daal nee na far na sama tayel ak samay njàqare ak samay ngeulum tek lu meena don neena rabi'ul awal yobale nako sa'adati الظهر هو الربيع الأول الذي هو الربيع الله أكبر فمن تخد علينا ربيع الأول خين لنكو وجه لي مولد خير مرسل حلاوة تخدل الطعم العصلي هنا ويرو ينتبه صلى الله عليه وسلم مقل جم غوين نيخنا نيخ غوخنا قتلنا تمن نيخ غلم أنا مو دق تمن لم لغو مم ويرو ربيع الأول nee mooy gën ci weer yi na moo gën ci weer yi moom rabiul awal faaqa rabiul awali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura ngir gane gi ci yonent bi sallam gane jamono tax nee na moo gën ci weer yëpp shahru rasulillahi bahjatu shuru bahjatu shuhur wa ramadana shahru itqin wa tuhur nee na rabiul awal daal nee na mooy taaru weer yëpp nag waaye nee na ramadan moom weeru goreel la ak weeru laabal ba tax na mom day magal na juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mille trois cent un maanaam mille huit cent quatre-vingt-deux wala ba gàmm na boba afan fan na 1301 trois wax na si Mor jël way jëm mi ngi ko jóge mille ay 1301 mom mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu gàmm malaktu mawlidan nabi min asasi kitaabati wa qaadani min jamsasi واخنا احييت مولد النبي من اساس دندلنا غودي غام و اتوم اساس موي 1301 في غدا جنت في صلى الله عليه وسلم وان قاد لي فوق المنى في طلطسي ولا وقاد لي فوق المنى في طلطسي امنا وان قاد لي فوق المنى في همسش اي دندلنا غودي جنت في صلى الله غودي غام تي اساس موي 1300 ولا غني 1800 82 سنتوبا دافنا سي غامو itam muy xemem lo nit ñi ci dundal guddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam melal ko melaw wo xamne ne ñëpp danañ ko sopp wax ay ngeenel yu nekk ci dundal gam moy guddu yonente bi ci gis bu dafay wax ne mawliduhu muazzam mubarakum muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhabi taqaddum magal guddik juddoom nga mom gën ji mbindee sallallahu alayhi wasallam mu'azzam magal ga dal lu ñu màggal la lu barkel la lu ñu xormaal la ay màggal ko day dana tax a jiitu de waaw tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin moazim nee na màggal ko ci sunna mooy ci bañ cee def daray puukaree kumpo waaye màggal ko ci sunna seen te bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko war a màggalee nee na daf ñuy wommat jëme àjjana te ci la ñuy dollikoo ay xéewal ci yàlla borom bi tabaraka wa taala يعني فمن يعظم مولد نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترم وعظم يعني كيفكم ما قال جدك جد من ديف جد من ديف صلى الله عليه وسلم ما كي خانم موي بنت جب لأن يعني اللي كان له حدا فرنا جاو نانكو أرمال تانا ما قالكو فمن يعظم مولد خير البرايا أحمد فك شهيد شهيد بدرا بغير وهم يعني كيفكم ما قال جدك جد جد من ديف صلى الله عليه وسلم مل غنك كتير وان بدر 好。 ci lu amul benn dem-dem le mel nga ne ku teewoon badar la wax nee na itam képp ku ci dépensé benn dërëm ku ci def sa alal te bañ a yàq donte benn dërëm la mel nga ne ku teew bisub xunayni nga muñ mel nga ne ku teew badar dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami donte benn dërëm la fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra alwara xayral waral mufahim nee na mel nga ne ku teewoon xone ni muñ mel nga ne ku teewoon ghazwatu badrin ànd yonent bi sallam dimbali ko moom yonent bi sallam dagaaj na fa man yu'azzim mawlida nabiyina ba wahda fala yuhasabu ghadan inda alhisabi almufhim képp koo xam ne màggal nga juddu guddi juddu gën ji mi def sallallahu alayhi wa sallam dal deefu la xisaab ëllëg ca xisaab ma nga xam ne day wedam loo al mufhim xisaab ma nga xam ne day wedam loo متشن فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معظما مبشرا بسكر أو لحم فإنه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضرر يوم اجتماع الأمم كيف كان تيوين جد جد جنج من صلى الله عليه وسلم من مجدل كو بيغل تي دونت نيام سوكر ولا مو او يوم دوال بسكر سكر او لحم فانه قد وفر بما يريد البشرى نين فوفو ني دي لو خاني دي ولا يلاقي ضرر يوم اجتماع الامم bis bu xeet yi dajee ca pincum borom bi tabaraka wa taala nee na yow bu boobaa doo gis daray lor mu tekki na fa man a hayya liman lahu qad qaraa mubajjilan fa xaba xayra képp koo xam ne waajal nga aw ñam ñeel ñi nga xam ne ñooy jàng guddi gën ji mi wala ñuy waaraate wala ñuy wax saane yéen tamit sasan ci guddi googee luñ ca mën a dundale rek ku waajal aw ñam jëme ca ñoom day nee na ndàmb nga denc nga ñooñ yitte maanaam yii wa nga xam nañ gaa yi amoon yitte lan jëf jëf yu rëy yën jëf lañ ca am ci fay nee na yow mi waajal aw ñam jëm ko ci guddi gëm ji mbindeef ña koy dundal nee ndàmb nga lu mel ne denc ko ok nee na wa man ala cheyin xara mawlida sayidil wala tabarrukan fa sa yara numu waxoo bil fadxami nee na ko jàng dara ci guddi gën ji mbindeef sallallahu alayhi ngir barkeeloo ko day nee dana gis ak yokkute ba faw الفدغم مي السيد المعظم وإن على ماء خري مولد خير البصر فالشرب بالمطهر يقف كيد المرغم يعني كو كو خمني جانغ نسي بد جن جن جن ديف يعني تري سان سلام نينا نيو جانغ دارا تفلي تي ندخ نينا ندخ مومي دي كوتيا نان دانا لا فغل فخم شيطان فالشرب بالمطهر ندخ ملا مومي بالمطهر يقف كيد المرغم دالاي فغل فخم ابليس تاي نخما نينا نانتا ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يحيي دون عضو عن شقاء يحتمي نينا نانتا دخ مومي مانام غودي گندي مي ديف ني جانغ تي بانوب ني دون جانغ تافلا تي نخ نينا دخ مومي كوتا نان داغا موتي فخن ابليس واي تام داي ليرال اب خول آه. نينا تا خول داي دوندو وليت اي سيك دانا لا ار تام تي اك تخيدي هي أم وليد البشر يحمل عيال والديور فيه شفاء لصدور لكل هاد ينتمي لأن دون الجد جند من في أنت بسم الله آر داي آر كريه داي آر نجابت جيتم لأن سافر لنيال خلي نكتب كو خمنة نجا أكن الفينت صلى الله عليه آه، وسلم فندل آه، لي لسرين جوا وقت جمو نوني لكو دان دون للمومت أو خنانة أحييت مولدين من أساس آه، سرين جوا Euh, gàmm na asas mooy mille trois cent un wala nga ne mille huit cent quatre vingt deux kon noonu yi la bëggee woon def naa salaam ci sopp ko waaye itam ci dundal sunnam waaye ci ñaaxe ci waaye itam ci euh, bëgg ko bëgg gu tar goo xam ne foofee la ak cofeel mën a yam kon euh, liñ ci mën a wax dana bari lool lool lool lool waaye dafa mel ni ñi ngi bëgg guddal ba mu ëpp te waxtu waa ngi dem kon nu tënk fii rek إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله kontaan nañ sant nañ wala na xasim yeneen bi moom kenn du ci doyal yeneen bi kenn du ci doyal moo tax sabat bi kenn doyalu wala na xasim kenn nag dara doyalu waaye nag di ñaan li duf ci nag bi xajul ci seen bi gis nga dox ci yooyu lépp xajul ci benn émission waxuma laa ba ko xajul ay émission yu bëree bëree moo tax rek ñu ngi la gërëm bu baax a baax rafet waxtaan yi nag xam-xam bi macha allah def jàmm yàlla na nga jariñoo sam xam-xam yàlla na ko julli di jariñoo kontaan nañ lool imam daal mbokk mi gannaaw bi nga seetaanee vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni man nga tamit wax sa xalaat yi ni si commentaire li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati ding ci jot jangin jeuf